mu tofal ke tamit ne ala kulli haal def naa guddi ak bëccëg ñuy suñu suñu suñu ñaari miracle buy tëkkale dee ak dekk rek buy tëkkale suñu kartan ak suñu wéetaay ngeen war caa mën a xalamee loola waaye ngeen dem ba jëleewu leen ci loola léegi na ma ngi cee tofal kullu insaanin kullu insaan ibnu abbas mu ne nit ku nekk rek xam na lu ko yàlla booleeg luy enris lu ñuy aar lu koy malaaka yu koy wattu ak malaaka yokkal xam ne ñooy enrichir jëfam ja bu baaxee bu bonee duñ teqalikook moom mukk su demee ba dee nag ñu jël mbiri ma enregistré ko ko ca doq ga su boobaa nag boo liggéeyee bu dekkee téere booba la ñuy lemarti ñu ne ko iqra kitaabaka kafa bi si nafsika al yawma alayka hasiba moo tax tamit loolu sax yàlla mi ngi wane loolu sax taxee guñu àllaaxira tey nit ñaa ngi dee ñu leen di autopsie di xam lu ko rey lan la ñu xoolee ca bëri dañ ci mën a gis lu baree bari ba xam ki ko rey ak jaaree ca loolu lépp sa baaraam yi nga teg ko muy sa apprenti yi ñi xam yaay kan mu wan laa identifier kañ nga juddu ñaati yoon nga ñëw ci réew mi loolu lépp kon dugg na ci wakulu insaan alsamnaahu taayir woo wakula insaanin bépp nit defal nañ ko taqale nañ ko alsamnaahu waral nañ ko taayiroo jëfam ja taayiroo maanaam jëfam joo xam ne xenu na ko fii unuqihi ca doqam nga su ko defee nag du teqalikoog moom mukk wa nuxriju danañu génne loo yawmal qiyaamati kër bis ci kitaaban luñ bind yalqaahu dana dajeeg moom mansuuran muy luñ firi ci kanamam suñ ko firi ñu ne ko iqra jàngal kitaabaka sa téere bi kafaa doy na bi nafsika sa bakkan al yawma tey alayka waral la xasiiban ci aj regle la yàlla ne man ihtadaa képp ku gindeeku fa innamaa yahtadi daal gindeekoom ga li nafsihi ñeel na boppam ndax moom moom payoor ga wa man dalla képp ku sànku fa innamaa yadul daal naka sànkuteem ga xale xal dal na ca bakkanam ba wala tasiru du xenu benn bakkan du xenu mbaa wala tasiru benn bakkan bu bakkaar du xenu wisra oxra bakkaara bakkanam moromam ma kenn ku ne yaay gàddu sa bàkkaar ak bopp loo sabab ñu fekk la ca nag da nga ca am bàkkaar ñu lay fekk ñu am ca bàkkaar wa maa kunnaa nekkuñu mu'azzibiina di way mbugal kenn walla wenn xeet wala kenn nit xataa nabaasa ba ta ni yónnee rasulan ndaw mbugal du jiitu ndigal dañuy digal nga wuutee ñi door a mbugal wa isa aradna bu ñu namee an nuhlika ñi xalak xarita ñooñ dëkk amar naa dañu ñu digal mutrafiha way xewuy dëkk ba mooy borom xalal yaa fa fasaqoo ñi génn ak topp fia ca dëkk ba di jaay ak rëy ak saatagaay fa xaqaxee alayha ca dëkk ba alqawlu baatam mbugal te mooy ñooñ dëkk ba fa dammar naa ñi bombardé tat mi ren ak bombarde wa kam ahlak naa bëri na bu ñu xalagee min al quruni ci ay maas min baadi noohin gannaaw niti noox ña xalag nañ niti saalihu yaag niti huud ña niti muusa yaag yu ibrahima yaag ba ca yu xeesaa ya wa kafa doy na bi rabbika sa borom bi mu sumu di ibaadihi ci bàkkaari jaamam ya xabiran ci aji xam leen yàlla ki ko xam de basiran de maanaam xabiran di aji dañ kumpa basiran di aji xam ko man kaana ku nekk ñu di namu ca jëfam ji xaajala ta àdduna rek nga ca bëgg xajjal naa danañu gaawee la woo ñeel ko fiyaa ci àdduna maana saaw la ñu soob li man nurid ñeel képp koo xam namu nañ ak gaaweem su ma jaal naa topp ñu def la woo ñeel ko ca àllaaxira jahannama safara mu de boo xamee dana njaar ko ma mazmuman mbir muy nekk di ko ñu yedd di ko ñu ŋàññi madhuuran nekk kuñ dàq wala si yërmande yàlla waaye woo man araada képp ku namm ci jëfam ja axirataha laaxira wa saa mu jëf laa ñeel ko saa yaa kem jëf ju baax jëf joo xam ne dana xelloog moom fekk woo moom ba mu koy jëf moom ñu aji gëm la yàlla fekk woo moom moom ñu aji wétal la yàlla fa ulaay ko yooyu gars yi kaana nekk na saa yoom seen jëf maskuran di luñ sant de ku lan ku mu si kuréel yii mu dinañu tëbb xaawulaay ñoo xam ne àdduna rek lañ bëgg waxaawulaay ak yi gaay yi bëgg àllaaxira min xataay rabbika saqee xéewal yi sa borom dañ leen ko jox ci àdduna ba mat sëkk ko bon ak ko baax ñëpp laay jox wa maa kaan nekkul xataaw rabbika sa xéewali borom maxsuuran di luñ tere kenn ci àdduna unsur xoolal kayfa faddal naa naka lañ xëppalalee baaduhum lenn ki ñoom xalaa baax ni ci lenn fi maanaam ci wërsëg wala al axiratu xalaaxira nag xëppalaante ak akbaru moo gën a màgg maanaam daraja ci daraja wa akbaru moo gën a màgg tamit taf di leen ci xëppalante de li xëppalante xamee ci àdduna ci wërsëg ci fan ci taar ci njool ci gàtt xëppalanteeg àllaaxira ga ci ay dara darajaat ci jana foofa la gën a xëppee xëppee na ko rek ni àllaaxira xëppee àdduna gënee na ko ni àllaaxira gënee àdduna su ko defee kon nag noonu yàlla nga koy wax yëpp yàlla nga ko ciy jàngale kon kon gis nga ayaat yooyu. ma dëxëñal la suñu borom su wa taala mi ngi ciy xamal ne kenn ku ca nekk sa jëf ji enregistré nañ ko ci benn papier jël ko timit laxasal la ko ci sa doq suuf mënta lekk kayit googa soo dekkee ñi làqarti ko ne la toogal nga jàng taxawal nga jàng yaay régler sa bopp iqra kitaabaka kafa bi nafsika a yawma alayka hasiba nga toog ne loxo rek xam naa ci notu soixante dix pour cent ci laalu laalu wut bët rek am naa ci notu quatre vingt pour cent ci xollu xollu wut nopp rek am naa ci maanaam notu soixante pour cent xawra am naa ci notu quarante pour cent ca ngay xool ba si yàgg nga yooxu ne maali haadal kitaab laa yugaadiru sagiiratan wala kabiratan illaa ahsaaha nga yooxu jooy te kenn dóorul la neex naa misaal bu ñuy examen yi képp ku at mi kenn du la woo téléphone kenn du la bindab leetar dañuy afficher rek nga xëy xool ko boo xoolee affichement yi rek jooy te kenn dóorul la wala rek nga kontaan ree ndeysaanam te kenn waxu la dara xalaa xiraati mi noonu la mel nit dana liir liir téeréem rek kontaan nit dana liir kërëm ya timit timit jooy boo liiree say notes yi daw ko say xarit say mbokk su ko defee nag ne leen xool leen notes yi ma am nag kontaan bëgg lool noonu tamit lay xamee ëllëg àllaaxira bu sa notes ya bonee nga jooy doo ko bëgg a ken kenn kooku mooy wa kullu insaanin wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi wa nuxriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura ñu ne la iqra kitaabaka rek mu jeex ku sànku sa sànku tega yaa koy daataarloo ku jub sa njub ga yaa koy daataarloo la kenn du la ci xëppale yàlla ne du ma mbugal aw xeet lu dul damaa yónni ki ñoom yonantu moo tax ñuy wax ne awlu fitra ñu dox ci diggante yonantu yonantu yoon naaju na mucc nañ mbugal du jiitu ndigal dañ lay digal kay nga wuuteeg ndigal su ko defee mbugal door a ñëw man yàlla yàgg naa mbugal xeet yi nga xam ne yàgg naa la digal ca gannaaw noox ba ci yonantu yàlla muhammad aw xeetam moo tax mu ne. waka maanaam wa kam ahlakna min alquruni min baadi nuuhin wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi xabiran basira yàlla xam na lépp dara dañu dara humput ko su ko defee kon loolu lay wax ku bëgg a àdduna da nga ca doyal danaa la ko jox ba mu doy sëkk waaye doo xam benn cër àllaaxira ku bëgg a àllaaxira dinaa la ko jox ba mu mat sëkk waaye doo xam benn cër ëllëg ci àdduna léegi nag commencé na tudd ñaar fukki juróom ñaar fukk ak juróom yi muy wax si nii ci ay tere yoo xam ne suñ ko bàyyee suñ njariñ la suñ ko toppee suñ toroxtaane la moom lay wax si nii laa tajaal bul def maa laay ànd ak yàlla ilaahan yàlla aaxara jeneen moom kenn doy na soo ko defee ngir ak xëppal nag fa taqoo da sabab soosa da nga jékki mazmuuman di ku ñu yedd maxzuulan di ku ñu gàccaal doo xam kenn ku la dimbale ëllëg wa qadaa xatte rabbuka borom sax ne an naka lay mbir tay mbir laa taabudu bu leen jaamu illaa iyaahu lu dul moom dong wa na rafetal bil waalidayni ci ñaari waajur yi ixsaanan ak rafetal imma yablugan na ndem jot nañ indaka fa yow alkibara ak mage ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar moo mage te mag dafa naqaree yore aw kilaahuma wala ku mu ci ñoom ñaar sax ñoo mage te ñaari mag dafa naqaree yore lu yore ba métti métti falaa taqul bul wax lawu maa ñela ñoom ñaar uffin cam bu leen mukk muulu bu leen maanaam mastawu wala tanaruhuma bu leen gëdd bul meccati ko mukk waqul na nga wax lahumaa ñaal leen xawlan wax kariman ju tedd wax fid na nga wàccee lahumaa ngir ñoom ñaar janaaxa zulli mbaggam toroxtaane te mooy nga wàccee sa mbagg ci seen kanam loolu kinaaya la min rahmati ngir yërëm leen waqul na nga wax rabbi yow sama borom irhamhuma yàlla nga leen yërëm kama rabbayaani comme niñ ma yërëmee woon waxtu wañ may yar saqiran mbir may nekk di ndaw rabbukum borom seen alamu aji xam la bi maa fi nufusikum di nekk seen bakkan li ngeen ci nëbbu yëpp yàlla xam na ko in takunu bu ngeen nekkee saalihiina di ñuy topp yàlla yàlla xam na fa innahu naka moom yàlla kaana naka jekk xafuuran jéggalaa kon la lil awaabina ñeel way topp ñi waati na jox zal xàq woo xàqam ci mbaaxee ci jokk wal miskina na ngeen jox miskini seen xàq wam na sabili doomi yoon di musaafir jox ko xàqam wala tubasir bul yàq ci dundale tabsiran ak yàq innal mubasir naka yàqkat yi kaanoo nekk nañ ixwaana shayatin di mbokk saytaane wa kaana nekk na saytaanu saytaane kafuuran di weddi haakoon li rabbi ñeel boromam wa imma tuuridanna gis nga ko kon yàlla fonk waajur ba boppam la njëkkee ci ñi war koo wéetal jaamu ko ñaareelee waajur doomu aadama yàlla fa ko togg ci ñaari cin cin bu njëkk ba yàlla ko ñulagal boppam sóoral ko boppam toggal ko boppam mu ñor mu yàqal ko boppam jaarelul ko ci benn matière ba nekk di moom loola mooy roox ki def lii moo xeeyoo ñu jaamu ko ñaareelu cin ba nag da koo jaarale ci ndey ak baay toqantal ma nii lu mbu suux wayroo ngay dund génn fa nga jaar nekk nga ne fañ jaar ak yow ba nga nekkali li nga ne kooku moo ñaarale cin yi mooy sabab ba kon moom moo xeyoo ñi rafetal jëmee ca ñoom waajur yooya nag ca gën a ñu rafetal jëmee ca moom mooy yaay nit ñëw na ci yonent bi ne ko ana ci nit ñi moo gën a yell ma rafetal jëmee ca moom yonent bi sallallahu alayhi wa ko sa yaay mu ne ko gannaaw si gi mu ne ko sa yaay ba muy ñetti yoon mu door koo wax sa baay hadis la boobu abi hurayra moo ko wax mu ne jaa rajulun ila rasulillah sallallahu qaala ya rasulallah man axaqu naasi bi xusni soxbati qaala ummuka suma ummaka door ko wax suma abbaaka suma adnaaka fa adnaaka lii yonent bi ko wax kon ki gën a la ci rafetal jëmee ci moom mooy yaay gannaawam baay gannaawam ku la gën a jege rek su ko defee nag ndax yaay mii nag moo gën a sonn te moom ak baay ñoo bokk bokku liggéey bi su baaxee moom moomale ko boppam di tiitaru kii mooy sama taaw mooy sama ñaareeli doom place place sàngam la ne bu liggéey ba yàqoo moomale ko yaay ne ko xamoon naa ne lii nga fi mën a xam kon liggéey boo xam ne tabaarakallaahu bu bonee rek ñu moomale ko yaay ñay saaga sax bu ñuy saaga yaay la ñu gën a saaga saaga yaay moo gën a ñaaw moo tax ku bon feeg saagaagul la yaay rek xolam seddagut kon yaay sonn na moo gën a yelloo ñu rafetal jëmee ci moom moo ëmb moo nàmpal su ko defee kon toll mama boo xam ne dootul ko neex lay sol nekkatul lu ko neex lay tëddee nekkatul lu ko neex lay lekk su ko defee tamit yàq ay nelawam ngir yow nga yàq sa bopp mu lay toppatoo kon kooka bu la kenn waxutoon dara nga war a xam ne kii mën a gën a rafetal jëmee ci moom rawatina yonent bi jàngal la ko su ko defee nag bu doom tekkee bàyyi tiitaru ah sëñ Hadi ma ne la bayka mu ne kii mooy sama taaw mu ne ko nga ma ko yéex a wax xaw ma ne moom la doo waajur ci la yonent bi ne torox bakkan torox na raxima an fuhu raxima an yaa rasulallahi man mu ne man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma suma lam yadxulil janna mu ne torox na torox na ñu ne ko ku torox mu ne kii dund ak ndeyam ak baayam mbaa mu dund ci ak kenn fekk ña nekk mag te liggéeyalul leen luñ koy gërëmee lu koy dugal xal jana yonentu waxaat ne lan yajziya waladun waalidahu illaa an yajidahu mamlukan fa yashtarihi fa yuatiquhu mu ne maanaam doom mënta fay bàyyi lu dul mu fekk ko muy ab jaam mu jënd ko goreel ko yonentu toog na góor ñëw di ko tàggu ci jihaad foo jëm mu ne ko maa bëgg a jihaad ànd ak yow mu ne ko ahayyun waalidaaka qaala naam qaala fa fiihimaa fa jaahid yonentu bi ne ko demal nga jihaad ci ñoom ñaar waajur ci lay wax ne ridal rabbi fii ridal walidayni wa suxtu rabbi fii suxtil ni sanjam yàlla lëkkalikoo naag sànjam waajur bu waajur meree rek yàlla mer ngërmandee yàlla xam naa ngërmandee waajur bu waajur gërëmee rek yàlla gërëm kon képp ku fi jël sab sëriñ di ko teg ci sa kaw waajur danga nga torox doo jëriñu ca moom doo dee dem safara ndax sa sëriñ bile ba lay bëgg ngay ànd ak moom ku mën a doon fa fekk nga man dara rek ba nga mën a gudd dara kenn rek la bëggoon mooy sa ndey ak sa baay kon bu ko watee kenn koo fi mën a topp lagar-lagar soo feebaree ñu yóbbu la ci sa sa baay su sa xel mi wàññeekoo ñu yóbbu la sa ndey sa baay soo dee ñu jox la sa ndey sa baay kon nag ndey baay moomu nga xam ne benn ba nga mën a gudd ñoom dong ñoo la yore woon boo mën a ci ñoom lañ lay delloo soo yeboo nga tel caa delloo sa bopp ndax buñ la ca delloo déw ruus dañ ciy bàyyi xel jamono ji yàqu na nag toppwaayu nit rek di leen sëriñ ñi lay ñi lay dëddalee ak sa waajur yi nga leen di topp te doo ci jëlee dara lu dul toroxtaane rek sa maas yi raw la boo lëggee nga dee dem safara yàlla yàlla musal ñu ci. sëriñ bu baax tamit du ko nangu sëriñ boo gis muy not doomi jàmbur yi ñu koy topp bàyyi seen ndey ak seen bàyyi du ko sëriñ mais këriñ la këriñ nag du dara mooy loo xam ne boo ko laalee ñuul bu la laalee ñuul bu ngeen laalantee nga ñuul këriñ du dara mooy koo xam ne lakk na ba pare moom day hut kum lakk rek su ko defee kon nag nañ bàyyi xel ci loolu. wa aatisal qurba xaqahu nañ jox jegeñaale yi seen xaq su ko defee la ñuy jox seen xaq mooy jokk leen ñett ya leen jokk benn saxu ca kawar làmmeñ mooy waxante lu rafet tënk mooy jëflante tànk mooy demalante su ko defee miskin yi nañ leen dimbale te yàlla tax ku tukki taga téem bi mu nekk musaafir nañ ko fat nañ bàyyi yàq alal yàq alal dara jiitu ci tux cigarette ndax yàq alal mënta paase taal ko képp ku yàq mbokkam saytaane nga nga yëg nga ñàkk a yëg lislaam dafa bëgg nit koy diggu doomu waaye sag dundale foo toll ngay yàq kooku yàlla bëggut ko wa imma tu'ridanna sababu nusool bi yonantu fa daan toog saaba yi di ko laaj buñ ko laajee luñ xamut ku mel ni Majaw ak Bilal ak Suhayb ak Salim Xabaab léegi-léegi buñ ko laajee luñ soxla te moom xamu ko fay noppi rek ngir kersa ngëb googu mu ñàkk ngëb nag mu mel ni dafa leen xaw a dumóoyu yàlla nag ne ko buñ la laajee loo amatut waxal wax ju rafet rek sarax la wax ju rafet ndimbal la qawlun ma wa maxfiratun xayrun min sadaqati yatbauha azan moo tax mu ne wa imma turidan anhum ibtigaa rahmati min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan qawlan mansuran wala tajal yadaka maxlulatan sababu nusool bi benn jigéen moo yónnee ca yonantu ba ne ko demal ne ko mu jox ma euh, yëri bu ma woddoo xawma lu ma woddoo mu ne ko demal ne ko mu bàyyi neen jamono mu ñëw fi waaje ñëw di ab xale ne ko sama yaay mu ne nga wutal ko lu mu xoddoo mu ne ko demal beneen jamono nga ñëwun fekkut ko fi xale ba ñëwaat mu ne ko mu ne nga dimbale ko ci lu mu xoddoo yonent bi jël mbubbam ma menn mbubb la woon mu jox ko ko te moom rek la xamoon waxtu julli wa jot bilaal noddu kenn gisu ko ndeke booba xamul yëre bu mu a mën a sol pour ñëw jàkka ja ñu fekk ko mu toog ndeysaan ak rafle ga kenn du yonantu bi loolu mooy isaar man a maye ba li nga xam soxla yaa ngi koy maye yàlla nag ne ko nag tàlli bu ëpp baaxut ku ko def da nga sa bopp waaye tamit nay ba mu jéggi dayoo ku ko def dañ la yedd kon ku nay ñu yedd la ku tàlli yedd sa bopp gisoo autoroute bi ba mu tollee ni mu tàllee ni sonnee gisoo basan ba mu tàllee ku ñëw xalangu tàlli bu ëpp baaxut de xayrul umuri awsatuha moo tax yàlla ne ko wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika bu ko jaaree ci yonent bi ne ñun la ci nam yonent bi mat na moo gën a tabe ñëpp waaye nag wala tabsurha kulal basti moo tax sama borom tofal ca ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga waajur ni ko yàlla fonkee de yàllaa ñu yàllaa fonk waajur ba wax ne nañ war a waxee ñoom nañ war a waxee moom sax moo ñu koy waxal. tere ñu nu ñu war nu ñu war ta waxeek ak moom nu war ta waxee ak mooy mooy falaa taqul lahumaa uffin waaye waaye ku lay tere ciipatu méccati ko kooka tere na nga gëdd ko mbaa nga door ko kon tere na la nu ñu war a waxe nu ñu nu ñu war ta defeek moom mu teg ci walaa tanharhumaa bu deen gëdd nu ñu war a waxee mu ne wax waqul lahumaa qawlan kariiman wax la tamit nu ñu war a comporté woo ak ñoom loo bëri bëri xam-xam bu ko sa waajur xam lu sa ndoom ba tànk rëy rëy bu ko sa waajur xam. lu sa wërsëg bëri bari bu ko sa waajur xam waxfid lahumaa janaaha zulli min rahma comportement baa ngoog mu jàngal ñu ba jàngal ñu leen war a ñaanalee muy waqu rabbi waqu rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaani sagiira yow yàlla yàlla nga yërëm sama ndey ak sama baay comme ba ma nekkee ndaw mënuma dara loolu yàq sama bopp nañ ma doon yërëmee ñu leen ko yàlla yërëmee ñu dem aljana lii la yàlla wax ak waajur dëgg dëgg nañ bàyyi xel ci waajur yi am na solo ku la ci xasaraw mënatoo koo jotati nit ñëpp ñu ngi rawee ci ngërmande waajur su ko defee nag bu ko bilaal mosoon a laaj ak xabaab art xabaab ibnu art xamut mu noppi jàpp ne noppi tontu la te am na koo xam ne boo noppee rek mu doon déglu wax da day gën a jaaxle moo tax yàlla ne ko wa imma turidanna ndéem da ngaa dëddu xanu walis leen ñoom boroom jege ñaale yaag lañ lay laaj ibutiraa rahmatin ngi rek sàkku ngërmande mu rabbika gu bàyyi ko sa borom tarjuwaha goog da nga yaakaar ko tarjuwaha goog da nga hóolu ko ci loolu ci sàkko sa wërsëg wi di xaar pour mu ñëw ne maanaam ibtiqaa rahmatin ji lim ci namu wërsëg mooy fekkee dañ laa laaj loo amul nga yaakaar ne leen xaar leen am na luy ñëw fokkul na nga wax rek lahum ñaa leen xawlan wax may suuraan bu buñ buñ jàppandal te mooy bu nooyee nooy wax leen ko rek waaye bul noppi boo noppee dañu gën a jaaxle kon buñ la laajee lu fi neexagut te yaa ngi yaakaar ak nexam fi waxal ak ñoom wax ju nooy mu jeex waaye nag beneen aaya ji mooy ba may ba may ay yéreem yum sol yàlla ne ko wala tajaxal bul def yadaka loxo sa maxlutan muy luñ gax ilaa ka jëm ci sa doq naa la ci rek ñàkk a joxe koo xam ne loxoom ya dafa dagg da nga dégg ñu ne dafa dagg wala ñu ne loxoom ya kat dafa nekk ca kaw ga nga wala tabsut ha bul ko tàllal ci dundale kulal basti gépp ak tàllal soo ko defee fa taquda sama soosu da nga jékki maluman di ko ñu yedd mu dellu ca bu njëkk ba maxsuuran di ko ñu saa yoo tàllee ba hëpp boo le yedd sa bopp soo tàlliwut ba hëpp banku ba raw mel ni jaalaan ñu yedd la inna ka naka borom sa yëpp sul dana mu tàll risqa wërsëg li ma ni saaw ñeel ko ko soob woo yaqdir dana mu xatal wërsëg ci ko ko soob innahu naka moom sama borom kaana naka jekk xabiran ku dañ kumpa la bi ibaadihi ci jaamam yi xam na li xew lépp ba ca tegu mu ne wala taqutuloo bu leen rey awlaadukum seen doom yi xam doom muy jigéen nga gas suul mbaa ngay def planning ak xasiyata imlaaqin ngi ragal ñàkk goo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi ñëw waaye xeg seegul nax nu ñun yàlla narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooya ngeen i rey wa iyaakum ak yéen baay yii di leen rey inna qatlahum naka seen ak ray kaana nekk na xit an di bàkkaar kabiran bu mag a mag wala taqaraboo bu leen jege asina ak njaalo lu bon la innahu ka moom kaana nekk na fahisatan di lu ñaaw wasaa bon na sabilan si aada aada bañ na ko sharia bañ na ko wala taqtuloo bu leen rey an nafsa bakkan bi alati ba nga xam ne xarama xaraamal na laahu yàlla ak rayam ah ilaa bil haq loolu ci dëgg faray ñi war koo mbaa mu njaaloo gannaaw ba mu sangihoo ñi war koo rey wa man képp koo xam ne xutila rayef na ko maxluman muy kuñ tooñ faqad jaal naa def nañ li waliyihi ñeexal aji aji donnoom te mooy ki méngoo deret ja may nañ ko sultaanan ak xirtal sultaanan kartan ca ka ko rey waaye nag buy demee bay fayu fala yusrif bu mu jéggi dayo fil xatli ca rey ga bu mu rayee nu wuuteeg niñ ko rayalee waaye tamit bu mu rey lu ëpp kiñ ko rayal ma ca xem képp loolu la tamu tañ tañ niroo innahu naka sama borom kaana naka kaana nekk na man innahu naka moom naka lay mbir tey mbir kaana nekk na moom waa jooju nga xam ne dañ koo rayal mansuran di kuñ dimbale innahu naka moom moomu ñu rayal kaana nekk na mansuran di kuñ dimbale boo ko defu damiru sha'nu wala taqrabo bu leen jege maalal yatiimi halali jirim illaa bilati lu dul ci yoon woo xam ne hiya moom ahsanu moo gën a rafet te mooy toppatoo ko muy yokk nga cay xam mu cay xam xataa yeblu ba mu jotee asuddahu dayob kartanam te mooy mu dem ba xam kartan am xel nga door ko ko jox waaw foo na ngeen matal bil ahdi ci kóllëre eh, bu ngeen kóllëranteeg nit ñi inal ahda naka kóllëre kaana nekk na masulan di lu ñuy laaj xëla yawmal qiyaam wa aw foo gis ko ba tey na ngeen matal bil kayli ci natt bu ngeen natt na fees ni ngeen bëgg ñu nattalee leen deleen leen na nattee moo tax mu ne isa kiltum bu ngeen natt wasinoo na ngeen mandaxa bil bil xistaat ci baskil mustaqim bu jub kocc na balance ba baax te na daanu zalika loolu xayrul moo gën wa ahsanu moo gën rafet tawilan ci ak dellu su ko defee kon nag wala taqfu bul xeñtu maa la nga xam lay sa làkka dee di la ñeel bii ci moom benn xam-xam ina naka dégg wal basara ak gis gi wal fuaada xol bi kullu ulaayka yooyu gars yi kaana nekk na masulan di duñu laaj xanu ci moom ñoom ñëpp ay responsable lañ dañ lañ leen a responsabilité dañ laaj sa xol bi lam fasoon bët yi lam gisoon nopp yi lam déggoon naa la ko gën a firil wala tamshi bul dox fil ardi ki suuf marahan nga nekk si ak sa di borom ak saata gaay di rëy rëylu innaka daka yow lan taxriqa mënuloo xat xar al arda suusi mënoo ko xotti walan tabluqa mënuloo jot al jibaal doj yi tuulan ci gudd mënoo fexe di kóol sa mbagg yi ba tolloog montagne ya mënoo rippi ba xar suuf si comme loo def desal defal nànk kulli zaalika képp ci ñu tudd kaana nekk na sa yi atandi lu ñaaw xëy bi ko fa sa borom makruuhan di luñ sib lu lu bon a bon la zaalika loolu nag bi ma aw xaa mooy nag wax wi na léegi jëm sa borom eh, léegi jëm ci yow rabbu ko borom sa mu ne la xikmati ci waare wala tajaxal bul def ma laay ànd ak yàlla yalla yàlla aqara jeneen soo ko defee fatul kaa sabab sos def la fii jahannama ci safara malu man madhuuran nga nekk kuñ soril yërmande yàlla ji madhuuran nga nekk kuñ dàq wala si yërmande yàlla ji lii kon mooy tolloog ñaar fukk juróom yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mu ñu koy tere te buñ ko bayee rek texe suñ ko toppee rek texe hadi bi ci njëkk digal nañu ne nañu tàlli waaye bu mu xëpp tere nañu ñi banku banku ba mel ni jaalaan kenn mën am ci yaw dara mu mel ni sa ñaari loxo yuñ jël xeew ko ci sa doq gi kooku xam ne mën ta joxe mënuñ koo jox foofa la nay mën a yam mënoo joxe mënuñ laa jox kooka fa la nay mën a yam yàlla ñu koy tere nay taxut a tabe terewut a ndax yàlla jaam bu ne bool na koog ñaari malaaka mi mii ndeyjoor mii càmmooy malaaka mi di wax ne yow yàlla allahuma aati munfiqan xalafan kii di wax ne allahuma aati mumsikan talafan yow yàlla koo xam ne lu mu xam joxe ko te yaay tax yàlla bu mu ñàkk lu muy joxe xalal jey gën di xalaf xalaf yu bëri rek wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatee yawmun laa bay'un fii wala xilaal waaye tamit def leen ci xalal ji ndax leen mustaxlafiina fii dañ leen ci huutal loolu la yàlla wax kon aaya jooju loolu lañu ñu digal waaye tàlli ba xëpp ku ko def bis boo ñàkkee yedd sa bopp ku banque ba xëpp tamit say mbokk yedd la kon na nga nekk ku diggu dóomu ndax xayrul umóor yi aw sa satuha loolu la yàlla bëgg su ko defee tamit mu tofal ca ne bu leen rey bakkan nit ñu bon lañu woon ku ci am doom ray ko buy jigéen nga ne mënuma koo dundal gàcce rekk lay doon xëllëg ñenn ñi tamit demoon ba nga xam ne euh, li ñu rey ci ay doomu jigéen kenn xamuñ ñu toll waaye gis nga ko léegi li ko li ko remplacé mooy planning bi rek nekk fi rek di planning di njaalo ngir bañ a xam doom xaraam na koo xamee tamit jëkkëram dafa dem muy njaalo ngir bañ a feeñ ci ëmb xaraam na koo xam ne ñu mi ngi ci ak digg dir yankee ne ma ko bëgg a doxal te doom dafa ma koy yàqal naa def planning ndax du ma xam doom kooku xaraam na ci moom planning daal ci kim dagan ñaar la mooy koo xam ne dafa nef xat mu jot mu am doom bu yàggee du ko fekkee doomam du ko fekkee nga def luy tax doom ya ji su soree ndax yonent bi doomam ya magante na ñetti at ci sayyidatuna Xadija kenn ku ne ak moromam wala nga nekk koo xamee na nii sa butatu njuréel dafa faible médecin bi ne la soo ëmbatee rek sa bakkan des ca su ko defee nag mu def la loo xam ne dootoo ëmbati loola yii la ñaar la ci boroom xam-xam yi setti yi ca desati yëpp ci xeeti ni ñi dafa xaraam def ko xamoo jëkkër ndëmmu ca di njaalo xaraam na moo góor goo xam ne dafay sol ay kawas di ca njaalo ñoo xem wala am nga jëkkër waaye da ngaa a njaalo ndax moom nekkut fi ndax sa boo amee doom du feeñ doo am doom xaraam na koo xam ne tamit xam nga jëkkër mi ngi fi waaye da nga ne su ma amee doom ñi xam naa ñaar bu ñettee mbaa mu ñeent mbaa mu juróom duma leen mën a yar du leen mën a toppatoo ku la ko wax yàlla nee na maa leen di wërsëgal doolu laa wërsëgal kon lu gi sa yoon jural rek te li ma la wax nga def ko maay tekkil maay yoral waa ko defoon dem planning ñaari doom la xamoon ne doy na jël oto dem di defi planning dañ defal leen ñoom ñaar du ñu xamati doom ñuy dëpp accidenté ñaari xale ya dee seen dund ba yàqu na yooyu yëpp dafa araam lii lépp tubaab yi ñoo koy indil bu teyee tey ñu ne organiser njuréel bi di leen di ay baat rek nam gën a rafetee yàlla na daana wax ne bu bàyyi leen seytaanee bu ngeen toppee discours mi rek mu yàq leen mooy tubaab yi yaa bani aadama laa yaftinakum saytaan ndax discours bu rafet kat ci la ci la sànkee woon seen maam aadama hal adulluka ala siratil xuldi wa mulkin laa yablaa te fekk dara taxawut ca kon yëpp tubaab yi ñoo ñu koy defal ñoo ñu koy indi rek ndax ñoom fu mu ay màgget dong lañ dese soo xamee lu ñuy lekk te xamutoo ñu koy lekk perte nga ñun nag alhamdulilah mi alamina bu ñu xamul luñ lekk tamit xam na nañ xam na ñu koy lekk ba tax na ñu ngi lekk li fi nekk bay dem foofa di lekk la nekk fa ñoom kon àdduna bi yëpp ci Afrique lay mujj ndax ñoo fi dese ay ndaw ñoo ko fi gën a bëri le te nag bëri kartan la innamal kasratu quwa kon nag al quwatu kasra loolu lépp dafa jar a bàyyi xel waaye nag tabaarakallaahu topp seen yii dañ lay yàqal. kon yàlla nee na bu wërsëg nekk seen problème maa koy joxe te man ñee laa ko njëkk woon doo ko ko warlul nahnu narsuquhum door a wax wa iyaakum lii nag mooy ñàkk gooy séentu bu mu tax nga def planning am na feneen foo xam ne nag min imlaaqin la wax mooy ñàkk goo xam ne dem na ba taxaw ba pare dafa taxaw ba pare bu mu tax nga rey lépp bàyyee ko yàlla wala taqatulu awlaadakum min imlaaqin ñàkk ngeen taxaw ba pare xasiyata imlaaq nag ñàkk gu ñuy séentu la kii sa yoon waaqe kii mutawaqi la mu tegal ci ne bu leen njaaloo wala taqrabu zina njaaloo bon na ci aada bon na tamit maanaam ci sharia ndax njaaloo ak mooy yàlla la njaaloo dana waral ñu gëtën la boo sangee gu téeméeri xat boo sangee ko ñi ray la njaaloo dana waral askan yu jaxasoo boo ñëwee ndaw ak njaaloo ndaw si keneen ñëw njaaloo ndaw si bu doom yi juddoo kuñ koy moomale doom ji nag bu juddoo xamuñ kuñ koy moomale ku koy yara ëllëg dafay indi ak sànkute ak yàqute ke société bi dafay dagg ak ngirte dafay rappel alam bi te loolu yàlla organisé organisé wut ko ak njaalo bu bëree ci ak suuf rek bee ko dal ci seen kaw azina wal xinaa laa yastamiaani te ñu bëri la ko loolu léegi xale bu la mujj juddu gën laa ñemee njaalo ci góor ci jigéen wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabilan bu leen rayati bakkan lu dul bakkan yi ma nañ leen ray ku rey ray leen ko ndax mu mënu leen fee jëlee ray ci lu dul ray bakkan bu ko wóoree ne bu rayee ñi ray ko dana ñoŋeel bakkanam bi ñoŋee daale bakkan ba mu mu jeex koo xam ne dafa njaaloo gannaaw bu mu sangee woo ray leen ko ku dugg ci lislaam murtar ray leen ko ku xas yonentu yàlla muhammad mbaa mu xas alquran mbaa mu xas yàlla rey leen ko ndax ñooñu ay néew yu dox lañ bu leen yàqaxal li jirim yi waaye nag bu wala taqrabu maala yatiimi bu nit dee bàyyi la jirim ni nga bëgg boo dee woon bàyyi ko sa doom nañ koy toppatoo toppatoo xee ko waliyaxsha allaziina la tawako min xalfihim zurriyatan di'aafan xaafuu alayhim falyattaqu llaaha wa yaqulu qawlan sadiidan waaye ba nit dee bàyyi laay doomam ngay profité lekk xalaat safara ngay lekk innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna sa'iiran dañ ciy bàyyi xel. am am nga sañ-sañu nag liggéey ca ndax boo ko fa bàyyee asaka lekk ko loolu la yonent bi waxoon xam nga buñ see génnee te dara yokkut bu yàggee mu jeex waaye nag mën ngaa def mu moom xiraat di ca liggéey di ca jël sa xàq mu cay am àqam bu demee ba màgg ñor nga jël ay seede teeweel ko ko bàyyam ba muy dee dix million la ko bàyyeekoon maa ko toppatoo ba mën na quarante million mu ngi nii yaa ko moom jëlal loo man demal defi nga orienté ko yoon nga muy teg ba alal ja du yàqu ndax ko xamul xalal kay am alal bu ñu la dimbaliwut xalal ja yàqu yàlla wax ak commerçant yi waaw fowul kay la su ngeen dee peese na daanu su ngeen dee natt na fees ni nga bëgg ñu nattalee la dee ko nattalee li nga bëgg ñi peesale la dee ko peesalee waaye nag xam ñaari baskil soo bay boo demee bay jënd xoo sa xale bi indil ma baskil booba papa ban mu ne booba yéen ñaar rek a xam booba nag soo jënd ne ko indil ma booba ban la mune la booba fekk déggoo ngeen ki ci seen i tappale loola baaxul niti sooxay bu ñu kat li tax yàlla xalak leen ay commerçant loon ñu doon mës-mësal yàlla xalak leen waaw ful kay la ida kiltum wasino bil qistaasil mustaqim yàlla tamit tofal ca ne dee leen matal kóllëre waaw foo bil ahdi léegi nag nit ñi kóllëre tegatuñ ca dara firi kóllëre rek koo ànd tey muy man ànd ga neex bu ñàkkee nga wan ko gannaaw xas ko loolu moo fi nekk tey tawatina politiciens yi amuñ ci kóllëre dara waaw foo bil ahdi innal ahda kaana masulan yàlla ne bàyyi leen di luññati ko lu seen yoon nekkut bu leen waxati gis naa te gisu leen bu leen waxati dégg naa te déggu leen nekk fi ne foog naa yaakaar naa boo demee te kenn demut boo liggéey seen nopp yi seen bët yi yëpp ak li ngeen fas ci seen xol ay responsable lañ danañ leen laaj inna sabaa wal basara wal fuaada kullu ulay kaana anu masulan yéen xale yu góor yi jaay réyantu bu leen dox ci suuf di rippi sol seen dàll yoo xam ne ku ngeen dëgg lor ko dox di bonde mënu leen a bonde ba xar suuf si mënu leen a kóol seen mbagg yooyu ba jot montagne yi loo def desal kon boo xeboo def nànk wala tamshi fil ardi innaka lan taxriqa al arda wa lan al tuula yii yëpp nag mu wax di ñaar fukki jikko ak juróom yu bon la na ngeen ko bàyyi moo tax mu ne kullu kaana sayyi'atan inda rabbika makruhan kon yëpp nañ ko bàyyi xel yii ñi wax nag nekkoon na ca téeréeb yonentu yàlla Muusaa musaaba mooy aay yi di ci tegu si moo tax bi ma waxa ilayka rabbuka min al hikmati ci wala tajaal ma allahi ilaan axara ba la ca tegu yëpp mi ngi woon ci téeréem yonent yàlla Moussa bi ndax loolu euh, Moussa téeréem bi yàlla wax na ko téere loo xam dafa doon waare di jàngale tawhid di am ay tere yoo xam ne tamit ma nga ca euh, euh, dégg nga kon aay yi yëpp mi ngi woon ci ñi bëgg a wax si nii mi ngi woon ci téere ti yàlla Moussa bi ndax moom maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in la woon mi ngi ca woon moom lay wax si nii moo tax sama boroom tofal ca ne daalika loolu lee bi ma aw xaa ci la nga xam ne wax yu na ko rabbuka borom sa minal hikmati ci xam-xamu njëriñ di xam-xam boo xam ne buy jëriñ la su ko defee nag ci ay waaraate wala tajaxal bul def maa lay ànd ak yàlla ilahan yàlla akara jeneen soo ko defee rek fatul xaa sabab sos def na sànni la fii jahannama ci safara malu man nga nekk di ku ñu yedd madhuuran nga nekk di ku ñu dàq wala séer mën de yàlla léegi nag afa asfaakum ndax dafa tàllal leen yéen dafa leen a tànnal yéen waa màkka rabbukum borom seen bil ban ne ci doom yu góor wa taxasa moom mu jàpp wa taxasa mu jagoo mi ngeen malaayka ci malaayka yi inaasan ay jigéen mu jël ji dam malaaka ya ni doom jigéen comme li ngeen wax yéen yéen a bon innakum wax xawlan wax aziman ju màgg ñu leen dugal safara wala qad safna walaay sa dëgg-dëgg biral nañ fi haza quran ci alquran ci ci ay misaal ci ay tëkku ci ay dëxal li zakkaroo ngir nañ waaru waaye wa maa yasiduhum dolliwul leen illa nufuran lu dul foñ rek walis dëgg xul wax leen ne law kaana bu nekkoon maa wa ànd ak yàlla aalihatun ay yàlla kama yaqulun comme niñ ko waxee isan lul bu doon xamoon lab taxaw kon la sàkku arshi jëm ci borom aras mi sabilan yoon wallahi jeneen yàlla bu fi newoon ju wuuteeg mile kon jeneen yàlla gi dana coup d'état morom ma ndax fat foo fi fekk tey buur bu fi nekk ak ku koy opposé ñu ngay coup d'état ci yu ne kon yàlla nag bu fi nekkee ba léegi ta kenn coup d'état wut ko day tekki ne moom rek moo fi nekk moo tax mu ne subhaanahu tudd na ma sellam wa taala jomb na amma yaqul na loo xam danañu wax ko xolu won ak jomb kabiran gu mag koo xam ne tu sabiw dana sàbbaal la woo ñeel ko asamawaatu juróom-ñaari asamaan asab'u yooyu juróom-ñaar wala ardu ak suuf juróom-ñaar yi wa man fiihinna ak ñu nekk seen biir yëpp ñu ngi sàbbaal yàlla wa in min shayd amul lenn lëf ci mbindeef yi illaa yu sabbihu loolu ba dama sàbbaal bi hamdi mbir muy làmboo sant boromam walakin li fi nekk laa tafqahuuna yéen déggu leen tasbihum seen ak sàbbaal innahu naka moom yàlla kaana nekk na man di ku lewat gafuran di jéggalaakoon wa idaa qara'ta boo jàngee quraana al quraan jaal naa danañ ñu def bay ka sa diggante wa bay na lasina ak diggante ña nga xam ne ñoom gëmuñu xalqulaayum duñ gëm laaxira ci àllaaxira hijaaban kiiraay masturan bay aji suturaal boo xam ne dafay nekk rido baaraas bu doo sa diggante ak ñoom wa jaal def nañu alaa qulubi seen xol ya ak kinatan ak muuraay an yafqahu wala si ñu dégg alquran wa fi asaanihim aji nekk seen nopp ya waqaran ak diis wa ida zakarta boo tuddee rabbaka borom sa fil quran ci alquran wax doo mbir muy wét daal walaw ñu dëddu mu maanaam nufuran di way foñ ala adbaarihim seen gannaaw ya bëgguñ koo dégg ndax nu ñun yàlla ala mu xam nañ bi ma yastami'una dañuy sàkkoo déglu loolu lan la mu ne is yastami'una waxtu wu ñu déglu ilayka jëm ci yow wa is mu ba nga na ñoom najwaa way diyaali di waxtaan mu badal ca is bay wax zalimuna way tooña te seen diyaale ga ne in tattabi'una déet ngeen i topp illa rajulan dul góor masuuran koo xam ne dañ koo njabar kalam neexul loolu la ñuy wax yonent bi yàlla ne unsur xoolal kay fa dara boo naka lañ saddee lakka ñaan la am saala léeb yi naan bu waykat la fa dalloo sànko nañ fa laa yastati'uuna xàttantit sabilan soobu yoonu njub wa qaaloo wax nañ di wedi dekki na iza kunna ndax bu buñ mujjee xisaaman di yax wa rufaatan nekk yu fënax a iza inna ndax ñun la mabuusuna ñuy dekki lañ xalqan ci bind jëddeen gu bees tàq yàlla nekkool wax leen ne kuunu nekk leen tan di doj aw hadidan mbaa ngeen i weñ gu ñuul aw xalqan wala ngeen i bind mi maa yi mbindeef moo xam ne maa ci la xam ne yakbur dana màgg fii bu su fii seen dënn yi nekk leen li a rëy bu ngeen ne boo di asamaan fa sa yaqul danañ wax ne man yuiduna ana kan moo ñuy dekkilaat xul wax leen ne la fi nga xam ne fatara ko moo leen bindoon awala martin ci njëlbeenu yoon tontu ko fasaa la waaye boo ko waxee fasa yun xiduna xal si nañoo yëngal maanaam ruu ilayka jëm ci yow ruusum seen bopp ya wa yaquluna danañ wax ngir ak yëji ne mataahu kañ lay doon moom dekk gi xul wax leen ne xasa an yakuna amaan di lu jege yow ma yadduukum fàttalikul bis boobu dana xoo leen ngeen bàyyi ko seen bàmmeel yi fa tastajibuuna da ngeen xuy ji xooteem ba bàyyi ko ci bàmmeel bi hamdihi ci ndigali yàlla yi su ko defee wa tazunnuuna da ngeen njort ne in labistum déet ngeen ni sax illa qallan lu dul lu néew ci àdduna wa qul waxal li ibaadi ñeel sama jaam yi nga xam dañoo gëm yaqooloo nañ wax xéeféer ne lati nañ wax xéeféer yi maanaam kàddu goo xam ne lati asanu moo ko a rafet ina seytaane naka seytaane yan saxu dana yàq bay noonu seen diggante ina seytaane naka seytaane kaana naka jekk xaddu wan noonu la mu bii naan bay aji biral ak nooneel lil insaani ñeel doomu aadama su ko defee rabbukum boroom seen ala mu xam na bikum ci yéen in yasha bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen ci tuub wa in yasha bu ko soobee yu'adhibkum mooy maanaam mu mbugal leen dugal leen safara kenn mënu ca dara wa maa arsalnaaka yónni wuñ la wakiilan ngay aji wattu xaleem ci ñoom wa rabbuka borom sa alamu xam na man fi samawaati nekk juróom-ñaari asamaan wal ardi ak mbool mboolem nekk juróom-ñaari suuf wala qad faddal naa wallahi gëral na ñun yàlla baat na bii na lenn ci yonantu yi xalaa baax nañ ci lenn xam na ci ñoo xam ne lañ xam seen morom xamul ko yonantu yàlla Moussa yàlla gënal na ko ci wax rek moom Ibrahima ci xarit wo yonantu bi yàlla Isra ak mihraaj te kenn amu ko waa tey naa jox nañ daawuda daawuda sabuuran téere bu ñu tuddee sabuur xul wax leen ni udoo na ngeen na ngeen woo la seen ñi nga xam ne saantum ndax ngeen ne ñoom ay yàlla lañ min dooni walis yàlla moo xam malaaka yi la moo xam isa wala usayru falaa yamlikuuna moom tiñ kas fa duri hu ñig lor xan ko walis leen walaa wala taxwilan du caa kenn ak wëlbati ulaayka yooyu gaay la seen mooy ñi nga xam ne ya doon dañ jaamu leen ñii ay yàlla ñoom de ya bu taxu na ña ngay sàkku ilaa rabbihim jëm seen borom alwasilata ak jege ñu ngeen jàpp ne yàlla lañ sax ñu ngay topp yàlla di ko bëgg a jege Useyroog Iisaa ñëpp yàlla rek lañ fonk di ko topp ayuhum ku mu ci ñoom a ngay seet aqrabu moo gën a jege ci yàlla wa yarjuna ña ngay yaakaar rahmatoo yërmandeem wa yaqaafuna ña ngay ragal xasaabahoo mbugalam yàlla inna asaaba rabbika naka mbugalam sa borom kaana nekk na mahzuran di lu ñu tere maanaam walis ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla nekk na lu ñu lëwal gàcc ko ci ñi nga xam ne dañoo wédd yàlla kon gis nga aayaat yooyu yëpp ma mbëmbëstalal la